Parcelles Assainies unité 17 njàq rek tis ci la askan wi yeewoo liko waral nak moy ak lak gu metti mo am ci këru njabootu ñi nga xamante ñoy jaasi jaasi ñi ba tax sax ñe juroom ci seeni doom ñak seen bakkan euh, ñent ñu jigen ak benn bu goor lolé nak tax askan wi yëpp ma boy wuteli fofé ñu tewlu ci li ci ay cd ba ñu xëyee suba teel la affaire bi am dañu na ñoo woo si nañ ñoo fëgg nañu xalé yi am na lu xew fé ci lañ démé fekk mu doon lak non la démé dafa xey suba si. ay 6 h six heures et demi dama wuti ay extrait baye xalé ci biir néeg bi mu tej leen dem xalé yi d'ailleurs bu ñu yeewoo sax ku ci gëna mag jël na téléphone am di wo magu yaayam bu jigéen après mom bi mu jógee la gis appel en absence yi plus de 15 appels la gis appel en absence yi donc sen yaay mi ngi fi sen papa mi ngi ci lima wax légui noonu noonu la démé yaay mi ngi fi ginnaaw ci ginnaaw kër maama li ma si jaaxal moom naka la saxaar si di mën a jógee te dëkkandoo ñoom ñu wàllu si. ben kër gi gisoo mu bindo fajar la ba paré kër gi dafa xat ñaari néegi ñoo takk loo ba pare ki taal néeg ki néegam tàkk kooku wérul xaw bu diis de bu ne la yaay délégué de quartier une telle nu yéele par coup de fil ne la lakk am na déjà am nga aw naqar déjà ndax ku sañoon ñi nga xamee ña nga woon ki fi la jox jox na yaa nu doy dara du dal si ñu waaye bu ne la nag lakk am na ñu jóg sul sun bu bu daw ñëw xale yi bu ñu lekkee wala ñu sol yére wala ñu naan seen yaaya tax seen yaayay def lépp leneen lu leen nit wax nag waxul dëgg ci ñoom la nekkoon ba lii yàlla indi ko yàlla rek moo ñëw yàlla bu dogalee rek day am jeex na. ndey baay. cinq xale nañ ku ndaw ki moom lañ tuddee sama papa ku góor ki seen yaay cinq bant la am ñeent ñu jigéen du ndijaay ci ñoom maam na ci ñoom. naqar woow nag tax askan wa di jooyoo mu nekk tiisu metti lool ba tax na sax ñenn ci kilifa yi ñu ci mel ni euh, waa gouvernement bi waaye tamit ko jég politique yi ñëwoon nañ fa nemmeeku ci boobu jafe-jafe ku ci mel ni euh, Thierno Bocoum lii li ci wax. waaw dañ fi euh, dafa doon loo xam lu tiis la lu lu tiis la loolu tax bañ ko déggee ñu ñëw pour fekkee xool xam lu ci xew waaye tamit.

degna altiné altine altine altine altiné altine passé do nañ ko sujet mais dañ ko rawé j'ai demandé nak par le canal du ministre d'État bi fi ñew and ak ministre de la femme bi ñew dalen dañ leen di ñaan bu démé ce président ganda ko dégué né da ngeen def conseil de cabinet président yebal leen ngeen ñew fi dañ leen di ñaan bi ngeen démé ce président ne wa waa kër ga ñu euh, xalé ki gañu sen papa dañ ko téw doon nañ ko watte altine mais dañ ko reporté ñu ngi ñaan bu ko mënta may grâce na ko may liberté provisoire mu ñëw fekk ni rëb ay doom bu ñuy interpeller l'État pour mu dem jusqu'au fond c'est-à-dire que bu ñu yem rek si waxu nit ñi nañu dem creuser xam exactement euh, nan la mbir yi demee ba suñ si mën a jël ay mesures ñu jël ko pour que lu mel nii mu bañ amati parce que nag Euh, dëgg la ay accident mun na am lu ne mun na am mais su dee responsabilité yi wala xool nañ ko ba gis na ni am na leen loo xam ne mun nañ ko war a mun a éviter mu jëm ci conscientisation mu jëm ci ay mesures mu jëm ci lu mu mënti doon dañ ko war a def ñu bañ a yem rek ci xewoon na fii euh, wala xew na fii jeex na beneen bi mooy nañu soutenir famille bi parce que famille bu am perte bu mel nii ak situation bi famille boobu euh, nekk na ci ay jafe-jafe Euh, waaye tamit am na jaaxle dama am yaakaar nag nag euh, famille bu su tollee si loolu ak ni mu demee état bi war na ko jàppale si anam bu ne euh, pour soulager ko pour taxawu ko. ba nga xamante ne ne dinañ mën a supporter deuil bi euh, te ñaanal aussi ñu fi jógee yàlla xara leen ajana lu ci mënta am nag ki nga xamante mooy Thierno bokk moom jàpp na na ak ndimbal war nañ ko sàkku jagleel ko ñi nga xamante ni ñooy euh, kilifa xale yooyu nga xamante ne ñoo ñàkk seeni doom euh, ba nga xamante ni daal danañ mën a def seen dëcc ci anam yi mu gën a waroo